Eh, jërëjëf eh, ajaratu eh, Betty ñu dalal tey sama xurdab bi nga xam ni nee naa ko tey lu ma naqari dinaa la ko sippi booy boo xam ne tey am nga sérieux problème parce <laughs> waaye ci suuf la ma araftoo ne ma man lan laa def ba war <laughs> ba nga war ba koo sippi Fallou hmm. Fallou Serigne mu sëriñ fàllu bàll mu sëriñ fàllu mbàkke macha allah bàll mu sëriñ fàllu ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog sénégalais yi saa ñu ngi lay fay mhm. du nuyu waa sénégal yépp koo xam ne képp yaa ngi seetaan ñu ngi lay nuyu mhm. di nuyu sama jigéen bu baax bi mhm. waaw di nuyu Omar bun Xataab gay Seydina Omar borom baaxee ca Madina di nuyu sama jigéen bi ay partenaire lay wut. ay partenaire la la <laughs> ay partenaire lay wut borom borom amoo siis. dégg nga dégg nga dégg est-ce que di nuyu de passage sëñ sëñ Moustapha borom jaamal. Hmm. borom jaamal waaw sëñ Moustapha borom jaamal. Hmm. di nuyu sama directeur général Mass Thiam bi nga xam ne mooy borom UCG borom Sona Z. Hmm. nga xam ne mu ngi defar dëkk bi. ndax ñun moom saa ñun ànduñu ñun artistes yi amuñu ay farandoo ay kii lañ faral kii lañ faral ah. ñun képp ku nga xam ne yaa ngi liggéey dëkk bi rek ah. ànd nañu yow ko ah. parce que doo ba gisati mbalit ci dëkk bi sax yombul ndax alaaji maas ci am waaw yàlla na ko yàlla defal macha allah a ngi góorgóorlu waaye waaye nag yéen a ngi euh, loolu moom gis nañ ko mm. waaye corne yi moo bari Ah, mais def saa def naa ci moom morso de def naa ci Mass Thiam morso bu bu bu oh nice bu may war a def clip seen camion yeeg bi ah day déranger quoi day perturber nañuy ah. corné benn kii ah ñuy corné la waa Tëngéej waxoon ne benn pipe la may benn pipe waaw waa <laughs> ko ñoom <laughs> la ñu waxoon kii ne ko benn pipe la may voilà yow léegi yow rappeur nga mbalax maan nga wala taasumaan nga wala lan nga yow non ñun mbalax la ñuy def mbalax waaw ah waaw mais ah. loolu la ci dara. moom kap. baalum sëñ Fallou kay bu ko neexee sol kap. Ah. Hmm. Ah, waaw kon balax ngay def. waaw mbalax laay def waaw. balaa dara di xew ñu dem rési ànd ak ki nga xamante ni kii mooy. Euh, alaaj Modou Diouf ak euh, Abdou Top ñu daal dee xool la nga xam ni moom nga def foofa ca mbalax ma soog a ñëw jugé la sa carrière nag mën na fi jaaree nga arrêté ba faw parce que ça dépend ci li nga xamante ni bi moom lay déglu parce que oreille musicale parce kii président daayira la kee animatrice bu doon jàng te bokkalul ndaw comme professeur am retraité <laughs> kon ay wañ ñu daal dee dem rési je en prie bala mu sëñ Fallou euh, clip bi banaane la <laughs> 2017. 2017. waaw nga ko defoon. yàggul de. yàggul 2017 euh, nga def clip bi ba dëgg ni bi clip bi xanaa gars teguñu ko lu bari. sixième année mi nga nekk. non pourtant am na ñu koy teg. Hmm, comme am na ñu koy teg ay ay télémusique da koy teg lu bari. télé. télémusique TMS waaw TMS. waaw TMS da ñoo koy teg télémusique waaw. moo tax kay sa clip bi siiwul télé musique siiwul télé musique ci boppam moo siiwul. Mm. léegi bu fekkente ne bi moom moo koy teg euh, kon donc da am problème amul beneen télé bu normal bu koy teg. mais ñëwal na wala seeta. ah mais dawu fi. ah, ah. doon nañ ko teg mën nañ koy teg. doon nañ ko teg fii li clip bi waaw doon nañ ko teg sa diggante yàlla yow. ah doon nañ teg nañ ko wàllu bi par kañ ko fi teg ndax am naa ah, suka def nañ émission maa ngi moom. yaa suka sukaar leen sukaar noonu la jaar ba dafa kii émission. ah loolu li jënd ko leeral ko ban émission la woon. sukaar ba day créé émission la woon sukaar ak kan. sukaar ak kan la woon. moom kese. sukaar kii est-ce que ñëwul Nepad Musica. Ah? non. xurdab. man de maa ngi bëgg a jox est-ce que juumul. kan mooy sukaar sukaar ngee de sukaar. kan mooy sukaar waaw santul mbay mbay la sant kañ. Ah. man kay li leer na ma de. ah sukaa lijjanti ko leeral ko. sukaa mi day luxus de émission bi sukaa day togg ak mu. wax di yu amul. mais loolu ban année la yàgg na. loolu yàgg na émission boobu dawul. non non doon animé. Euh? fan la ci télé wala ci rajo. non rajo. ah bu rajo Bécaye. Ah, rajo ah d'accord ah rajo Bécaye. waaw waaw ah eh yow man mi lay Walf nga am ay sukaa def nañu émission yow it nag quand même. ah non non normal. rajo yu rajo rajo eh, Bécaye rajo boobu daa génn ñaari tali. yow bu ñuy wax yow ngay wax nag. non déglu ma euh, déglu ma euh, ci télé laa la wax. waaw clip bi yow télé musique nga ma fi waxal ak ban télé. nga ko dawal télé musique moom da koy dawal. télévision ñëw na Walf daal en tout cas. waaw ak Walf nee na daw na fi saa loo bañee mu daw Walf dawoon na fi kay. musu fee daw waxal bu fekkoon ne daw na ak 2S kii El Hadj Ndiaye xanaa da doon nelaw yow yow sa kii bi mooy kon ce matin waaw émission mu tudd ce matin. kon Omar yowal. Ah, hmm. ce matin étaanu. Ah, ce matin waaw Omar ah. Omar nee Omar na fay na Omar. Omar la Omar bosam bi mooy jublu. ce matin def naa ce matin ak 2STV quoi. waaw d'accord. yow defal naa Modou Mbaye ñoom Modou Mbaye yow ah, yow yow waaw c'est man morceau bi mhm. yaa ngi ciy way jigéen juy sëy waaw ndamal jeeg ah, ndamal jeeg waaw wane nga kuy togg fóot root et cetera ak yooyu waaw euh, yow pour yow loolu mooy sëy non dama ne li nga liggéey loolu pour ma ne ndax loolu mooy loolu mooy danga may déglu saa dama ne li nga liggéey waaw sonn ko ci kër gi tey lay leer mm-hmm. maanaam jéeg bi laay waxal ko maanaam jéeg bi li mu liggéey si kër gi mm-hmm. sonn ko ci kër gi tey lay leer waaw ah, tey lay leer waaw maanaam comme root boobu ma wone waaw mais est-ce que loolu nga wane du njuumte yow li nga jàpp ni moom mooy euh, mooy moom la jigéen di def ci kër parce que du ay togg ak yàq ak fóot ak paase loolu mooy parti kii mais li nga xam ni moo tax. dama ne ku njëkkee gërëmul. Ah, waaw goro gërëmu la. waaw ku gërëm ku yooyu ay erreur la. ay ku njëkk gërëmul gërëm gërëm et cetera yooyu ay njuumte la. comme yow comme li nga jàpp yow erreur bu baax na mbokk waaw yow li nga jàpp yow. moom ñun xam nañu du erreur. c'est que. c'est xam nga sëy. Mhm. sëy waaw sëy d'abord li njëkk mooy. xam nga moo tax am na ñu bari ñu ngi sëy. Mhm. mais dañuy juum ci sëy gi. parce que au lieu que ñu toppatoo au lieu ñu toppatoo seen borom kër. mais dañuy sëyal ay njëkkee goro et cetera. ba mhm. finalement dootuñu am seen jotu borom kër. te loolu day indi ay jafe-jafe. Mhm. est-ce que xam nga loolu non ah, en général waaw kaay ma xamal na jeeg bu bu jëkkëram kontaan ci moom hmm. moom la ay njëkkam ak ay gorom di gërëm hmm. waaw mais ku sa ah loolu ça n'a rien à ah man loolu jaaxal ma. Ah, ah, am loolu yéen ma ne li ma lay wax li ngay wax sëñ bi déglu Omar mii xam na li may wax mag la day tappale waaye xam na bu baax li may wax. looy wax non dama ne. Mm-hmm. tey. Mhm. sëy mhm. buñ ñee diw ak diw. waaw yaa ngi dégg. Mhm. pare saa nga gis jigéen joo xam ne day ñëw ci kër. maanaam moom goro ba la toppatoo ak njëkkee yaak yooyu ñooñu la tal. bu ko borom këram waxee dara sax du ko def. maanaam li muy def mooy li ko njëkkee mbax lu ko kii kiyam def. maanaam ñooñu lay daw seeni mbir. loolu est-ce loolu du échec. non du échec c'est maanaam nji goro. ci sëy ah. ak njëkkee xorom la ca. mi ngi mel ni ngay togg sa ceeb rek. Hmm. jëloo xorom def ca. def def lijum yëpp. xorom la ca waxuma du xorom. xorom la ca ah, d' accord nga nga respect leen respecté leen. fexe ngeen nekk loolu d' lii tax tey. waaw naan tey lay leer. loolu du foofu. mais woy wi li ko indi. yow li nga ne tey lay leer yow sa tey lay leer. xam nga li indi wooy wi boo dégloo ma xam nga li indi wooy wi damaa nekk si programme di juillet. Mhm. wasin wi ñëw du gàddu doom ji liir bi. waaw dugg ci biir. ba romb ma te xaw ma ne wasin bi ñëw na imagine toi yow loolu baax na gu jéeg bi sëy ci kër waaw yow bu bu boo amee xew ba def saw lu baax mhm. normalement bu boo jógee salon njëkkee dañoo war a taxaw di la gërëm say góor a taxaw di la gërëm mais man ñëw na ba dugg ci biir kër tey uma sax ñëw na ma ne ko waa ah bala yow danga ma dul wooy ma ne ko anam mu ne ma kaay wooyu ma fi ma ak samay copine mm. ma ñëw dugg saal bi wooyu ay copine am mu fay ma ma ñibbi léegi nag ci laa xam ne ni kii amul ndamal jeeg. est-ce que du jeeg ah, amul ah, déedéet. lan mooy ndamal jeeg mais défaut bi ci kër gi sëy ci kër gi. xam nga yow mii nag yow yaa ngi ñëw ci kër jàmbur bëgg a jugé. kër gi noon nga kër gi yow. non non li ma la dëgg la de. man benn côté li mu wax nii dama ko koy nangul. tey jii mënoo di sëy ci kër say njëkk nekk fa. waaw say góor a nekk fa say jar say say say frère jëkkër ak. ñëpp nekk fa nga ñëw romb diggu ci néeg bi te kenn neewu la sax. jéeg bu baax wala dara ajaloon gi waa kër gi parfois. non waxuma ñoom la de dama ne loolu du. signe bu baax mën na mën na sikk mais parfois tamit. waa kër yi du ñu ànd si say boobu lépp mën na nekk loolu lépp mën na nekk sikk sikk sikk soxna si déglu ma la nag loolu sikk sikk sikk boo amee xew mm. oto bi wàcc pm ñu kaat wasin bi ñëw na wala diw ñëw na mm. njëkk yi dañoo war a génn goro yi wala xaritu jëkkër d'accord woon ci sëy bi nag peut-être bëggaloon nañ ko keneen nag loolu ah, tamit mën na nekk de mais mën nañu bañ a d'accord ci sëy bi nga ñëw ah, euh, euh, euh, romb seen jot ah, déedéet mën nañ laa bàyyi ba xew ñu bëgg laa humilier wallaay loolu yëpp am na ci am na tey moom du parce que da ngay togg da ngay fóot da ngay yàq bañ na ko ba l'islam daf ne am nañu bëri bu ñuy wax dañ ne sëy togg ak yàq c'est pas une obligation ku jigéen war ko def ma jigéen tax dégg ma jigéen loolu xewatul waaw d'accord loolu lépp dëgg la loolu amatul fenn loolu lépp dëgg la ajaratu wax loolu ñu ko dindi togg yegg fóot passé nangam jég bii fóot sax day wut ku koy fóotal nañ leen waxante ne fi ne nag ku nekk ci biir yi lañ génnee lii tax lii tax yow nga ah, am ndam ci sa néegu sëy mooy sa jëkkër da laa gërëm mais bu fekkee da ngay def semblant ah, que ni non non nangu naa nangu naa parce que déjà ki nga tànn bay nii war na la gërëm dokalay kii waa ji ah kañ amul sax am na ñoo xam ne ajaratu am na ñoo xam ne wallaahi xam nga lan la ñuy seet ku leen gërëm di def affaire hypocrisie te loolu baaxul balaa ñu lay gërëm d'abord say njëkkee di la gërëm day fekk sa borom kër gërëm la ba non non non déggoo li ma la wax kooku mooy premier voilà mi ngi noonu sa borom kër mooy premier fàtte seen borom kër dañu bëgg a loolu loolu mënul nekk fàtte sa borom kër mënul fàtte sa borom kër am na ñoo xam ne goro la ñuy toppatoo seeni njëkkee non non loolu mënul am na ñoo xamante ne non non non mais ça loolu loolu boo ma déggee sax loolu am ajaratu am na ñoo xam ne bu leen seen xol bu ñuy dem benn sax seeni goro la ñuy tàggu ak seen ak ak seen i njëkk waaw mais balaa balaa sa goro di la wax yow da balaa ñuy ah, gis wuñ ko nga naan ma la. Ah, saa Ndiogou xam la moo tax ma ànd ak yow am na ñoo xamante ne nii cherché wuñu ngir faire plaisir seeni i belle bañ ku leen xas bañ ku leen ŋàññi moo tax ñuy doxalee noonu mais sëy d'abord day jiitu yow sa borom kër ba noppi mu gërëm la ngay doog a génn keneen di la doog a génn. voilà léegi Omar en tant mmh. expert en matière de sëy yow booy bi ñu ko déggee mu way. ah waaye wàllu sëy. loolu doo ci kañ nga ma génnee daara non non expert Ah, expert ci wàllu sëy lañ nekk. moo tax nga nekkaat ci biir. mais mais waa ji mais waa ji. Ah. mais ni mu inspiré woo aussi xel la daam fu mu ah. ànd ak moom. xam ne règle boo gis am na am am na. yow daal bu d'accordul boo gis am na. exception man lu la naqari neex ma moom laa àndal tey. mais moom daa daa am ci lu mu yam hmm. loolu inspire ko. mais bu nee diw baax na mbokk yaa tax ñu. mi mi mi mi c'est ça ah, parce que man daa am lu mu ah. gëm mooy. ni mu ni mu naxante xaritam boobu ba xarit boobu mën ko gunge gëm naan ko naxante woon ak ay mbokkam bis dina ñëw parce que daf ci am bis yoo xam ne des koy sóor ci àddina ah. mooy bisu xew dafa dëree sóor te bis boobu nag say mbokk dañuy am solo ci yow ak ñi nga dëkkal parce que aussi ni lay jàppee moom la la say gan di jàppee maa maanaam ni la waa kër gi jàppee ak noonu la la say gan di jàppee lan moo xew la la leen lebal ba bisu tey bi am hmm. loolu mun na ñoom bon gu ñu mën a bon ak lu la mën a bañ bañ bañ bañ bañ pour man yow yaa ñëw di see waraloon topp si seen jikko tey ji ba bis boobu ñëw tey teew si sa kanam say xarit di la gunge say mbokk wan la ginnaaw te bu nee di baax yaa tax ñuy wax pour man yow yaa ñëw ci kër ñoom seen jikko ak nañu mel mënoo ko soppi mais yow fexeel ba mel ni nga war a mel man man saa li ma gën a eh. jaaxal le fait ma téléphone ma ne ko da ñëw mu ne ma maa la romb liir bi ñoo wala way maag samay copine bu sëñ Fallou dégg nga xam nga xam nga dafa loo xamante ni rafetul sax ci gis-gis <laughs> je suis désolée. mange mais li ngay défendre nii. kenn mënu ko défendre xaaral rek xaaral rek xam nga nee nga. balaa gërëm keneen ku gërëm. jëkkër a war a njëkk gërëm. loolu duñ ci werante. ah dégg nga jigéen ñi mais cas bi fi mu njëkkee njëkk gërëmul ku gërëm fi mu sëgg de waxuñu jëkkër de. <laughs> non na gërëmu <laughs> jëkkër boobu fekk na ca bi kañ gërëm na saa ñëw saa ñëw waaw voilà loolu laa la wax évidence la moo tax jarul lim mais nag. nañ leen waxante dëgg ay li nga wax nii man gisatuma ko fóot bale yekk xale yëpp a ngi wuti lu nu am ku ne yaa ngi liggéey bu sax jëkkër xëjee nga xëy romb ko yéen ñaaree xëyandoo yéen ñaaree duggandoo presque ci biir ah, mais di nga ma déglu di ma tey eh, wax nga dëgg lii moo bu yaboo na ñàkk liggéey bu leen gën jigéen ñi ñenn jigéen ñi gënee compétente man kay fel la <laughs> mais daal euh, man li ma li ma bëgg wax euh, Omar s'il mm-hmm. li ma bëgg wax mooy mooy mhm. d'accord jëkkër dina gërëm parce que la ngay séq ak sa jëkkër sa jëkkër nga ko séqal mais tamit sa jëkkër am na ay mag am na ay rakk am na waxuñu nga yëkkati sa alal boo ko amul di leen ko jox waxuñu loo mënul nga koy jéem di jaay yëfu naa fekk noo non noo gis nga jàmm ak yëpp dafa ëpp milliard jàmm ak yëpp dafa ëpp milliard góor non non non may ma sama ñax xanaa li may wax arrangé la dictateur bi bëgg jigéen booy teg ci kër bi boo ñëwee fekkaat ko fa loolu la yoon loolu la yow eh saay baal la bi ginnaaw bi sa way wi nga xam ni bon réeroo nañ ci kenn xamut ko. yow est-ce que am nga beneen way sax sa say way. waaw def naa ci Mastiam benn benn morceau. waa Sonazet waaw déglu loolu way Samba Mbayaan la ñun wayu normal la non non non. waa ICG Sonazet nga xam ne ñu ngi liggéeyal réew mi yow saa xam nga ne yow. mbalit mi ni meloon ci réew mi yow da nga fay liggéey. ah da nga liggéey. non liggéey moo fa mais sam ménagère fa la liggéey escroc nga. Mm. non non ñu ci Mass Thiam Mass Thiam déglu leen di jàppale eh! saa bàyyi ko ma naan set nanu jéem a set alaaji Mass Thiam seetal nga réew me na fee jaar na fee Mass Tine na fi waaye ba nga yëg see seetal nga set nanu jéem a set alaaji Mass Thiam seetal nga réew me li ma maanaam boo koy génne masse di la yóbbu ci yoon. woy bi lii son mi ngay sawaay na ko teg. mi ngi ak toog. waaw mi ngay toog na ko teg ma palay bag nga dégg. ak woy benn woy moo wax ni Youssou Ndour laa koy saa. waaw ah, woy nga ku baax ah, référence woy nga référence ma naan parti de rien à la Médina wallaay l'artiste planétaire yaay sunu yaakaar yow la ñu waaw waaw way ci Youssou Ndour lu nice barke sëñ waaw way nga ko war a way saa ah, mais saa ñu ngi koy rek ñu ànd rek bu ah, jarul way ay jaamur waay waaye ah. boppam la ko indi non non non boppam la ko indi alors ma ne saay mm. déglu man way bu dul wayu Samba Mbayaan ban nga ci man moom laa lay laaj. mais man dama ah, Baara. ndey bu soo baax bàyyil mbàkke la réew taamu waaw ko ànd ak Serigne Fallou Mbàkke doo daanu. baramu Serigne Falloo yow. ndey bu soo bàyyi mbàkke la réew taamu. jaarama ye waaw seen caali demba seenay sama maam jim ndoo ko maa laat meew maa joor saafay awame ci joog ablaay seenay sama maam xam sa bopp dafa neex bu fekkee xam nga fa nga juddoo eey sama ndangaan àdduna ku ci yablu sa baay barke wàccu la du saa njogu yaa jàmba dawul xare yow saa ñunu ñu nekkuñu fii di def ay di dóor ak yooyu noonu. nga jël de. non non. ah eh. non non jëluma jëluma nga tax ñi mere la de. non non non ku nekk. non saa na kii indi Youssou Ndour bi. na na kii nga déglu ko. Youssou Ndour ba non de Youssou Ndour dégluwuñu ko bàyyi Youssou. non na indi na indi Youssou Ndour bi ma. play back da ngay fexe waa TFM invité la. waaw ah. wala nga wala nga indi Massiam bi ma play back gu nga dégg nga xam ne ñun. ñu liggéey la ñu àndal doy na. <laughs> ah non non mais yow fan nga toll ci liggéey bi. non maa ngi liggéey ñu ngi liggéey parce que ñaari morceaux yi dañu ko war a def clip. ñaari morceaux yëpp. Massiam ma waaw sànq maa ngi trois ah, morceaux. waaw non non non non. xam naa li ma la wax. parce que da ngaa bëgg fi mu toll nii Massiam Euh, ñëw géew. nga def clip. waaw na ñëw sax daa war a ñëw sax ba tey yàqu ko. buuba nduur sax daa war a ñëw foog ñu leen di jàppale. aar bi moo la war a jàppale saa buuba sax daa war a ñëw. buuba li mu wax lii ci Youssou buuba war na ko mën a woo. ah mais Youssou Ndour bu ko tegee boo ko dégloo nga xam ne. saa dafa TFM ñu tegal la ko teguñu ko. mais saa moom Walfadjri la ñëw. waaw mais ko mais dañ ko fa war a teg télé benn la. teguñu ko duñu ko teg. na dem ci saa dafa contre buuba buuba rek la lakkal. contre ma ko mais buuba xam na ni li ma wax nii c'est normal. voilà saa yi léegi yow léegi yow depuis ban année nga nekk dugg ci li nga xam ne mooy musique. non musique bi man ci laa judd ci laa yaru ah, doomu géwél laa maanaam. ma ne ko ah. doomu géwél laa. doomu géwél waaw ci laa judd ci laa yaru ban année. man 1981 laa. 81. Euh, non 81 nga dugg ci musique. 81 laa judd. ah damaa defoon 81. non laa judd. ah dama koy yor dafa mel ne kii nijaay. non oui moom ñun dañoo judd di non ñun. Ah, non moom dañoo dañoo dañoo dañoo nekk. 81 di way doon ay xale di way waaw. Ah. doon ay xale. 81 doon ay xale lan 81 nga de xale yow maanaam dañoo judd doon ah. xale di way. 42 ans déggoo doo xale de baax nga naan xale. dañoo judd ma ne doon xale di woy. ñun ah. yàkkamtiwul dara. waaw mais war ngaa yàkkam. man 42 ans ba léegi kenn xamuloo war ngaa fexe gars saa sa am na artiste bu ñu fiy wax. daal ba nekk Kéba ah, laa àndal. Ah, ba nekk Paa Soga si. <laughs> ak Paa ak Paa Mbaye mais mais mais mais dafa saa. carrière am ci wërsëg buy ñëw. wërsëg buy ñëw. wërsëg buy ñëw. kenn xamul ñëw. macha allah parce parce que sëñ mm-hmm. Fallou moo ko wax ne ne nekk ki nekk ci ab tali. Mm-hmm. mu mu neex a yóbbaale ni ki ne këram. tey jii yow mën maa soxla walf mm-hmm. bëgg a toog sama biir néeg na man amoon ku ma yóbbaale walf wala nangam mais boo génn ci tali bi. saa mën na laa romb otom Omar mën na laa romb. na laa romb nga ne ko biti foo jëm mu ne la walf nga yéeg mais boo nuy nekkee sa biir nekk. toog de xanaa damay xaar nekk ca. ah nga ca. waaw d' accord. laay def waaw. amul lenn lenn fooy xare matt wala yooyu. non waaw des fois nga am fooy xare matt des fois si giir woola am xew woola. ah da ngay animé. yaa ngi def cérémonie waaw waaw damay baala indil ma bongo wala indil ma ay affaire man ma joué bongo dañ may joué quoi. ah dañ lay joué ngay way. waaw dañ may joué may way. kii mooy kii anytime xaw ma nu mu tudd. anytime anytime waaw ça dépend rek. boo ma fay man moom l'essentiel ñun lu ñu ah. liggéey. kon yow yaa ngi ci anytime. anytime bu dox na rek fépp. dinañ ko booleeg Mame Matar Gueye anytime. ñu ngi fépp euh, non pourtant anytime bonul mais liñ ci rax moo ci bokk rek quoi. Ah, ku nekk ak yow la ah, mais dafa rafet non non non non mais ñun bu dee xumbal sax mais am na jëkkër wala doom wala kii. Ah, am na femme yu ëppal kenn du woy naan wane leen seen i béy. delloo na sa point de ma xool sa eh, eh, point eh, <laughs> moo ko wax. wax na ko loo ko. kii ah, wax na ko loo ko Seka. boo waaw. waaw ma jënd jaani pax. waaw yëkkati ay Seka. fa mu xalaatee. fa foofu ajal aj lu mu jëm kaw na nga ko xeeb. Ah. lu mu jëm kaw na ko xeeb. daan man kay dama ko bëggoon lu mu def jàpp waaw léegi. Euh, Balla mu mm-hmm. euh, allah. waxtaan bi neex na am na solo mm. euh, looy tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo di di di di tàggu sama sëriñ bi nga xamante ni sëñ Moustapha borom jaamal. Mm-hmm. di tàggu euh, Cheikh Dieng sama sama ménagère moom la nekk. Mm-hmm. ménagère lay liggéeyee. Mm-hmm. di di xamal maas am ne ko ñu ngi waaj ñëw foofu. Mm. ñu ngi waaj eh, fii ngay wutee audience bi yow. non non xam li wax nga koo <laughs> way parce que bu ma nee jaan jaar na fi. Mm. Moussa Tine jaar na fi waaye ba nga yëgsee setal nga réew mi maas am la ñuy wax loolu. waaw. waaw d'accord tàggatoo ba nga yeg see la réew mi set. waaw waaw ah yow xam nga ne UCG defal na. réew UCG ñu ngi liggéey. UCG ñu ngi liggéey wóoruma de gisuma soo ne boo demee dana daal oto buy dañ ngaa gis mbalit mënu boo demee nga ni ko dëgg yàlla wala nga boo demee nga ni ko ay mbuus ay kii. caa caa may ma nag moo wax na soxla maa ngi wax suuf soxla mu ñëw mu ñëw sponsorisé Taku Show gis nañ ay e waa am problème waaw yow da su ma waaw wax ko boo dem boo gisee nee ko. man am naa fa euh, ay xarit naa ko demee naa ko incha allah ayca voilà. Hmm. kon euh, Balla mu sëñ fàllu waaw waaw tàggatoo nga ba pare ah. waa pare ko waaw damay tàggoo di tàggu sama ménagère Cheikh. Cheikh Dieng waaw wax nga ko di wax ne mi ngi jàpp si liggéey bi mm-hmm. waa di gërëm nag sama aaw bu nekk ci kër ga aji kumba mi nga xam ne moo yor samay ñaata galon nga non man benn galon la ah, ah, waaw mën a wax rek nga gërëm sama jabar la daan sama aaw mel da nga am ñaare non am dama boo dégg ma la gërëm sama jabar ah. moom moo géré la ne ca kër ga xam nga ñun dañuy génn rek. dem ci jox leen moo kër ga moo géré ah, macha allah waaw ñu ngi koy nuyu nu mu tudd. aji Kumba Ndiaye. aji Kumba Ndiaye. Ah, waaw nuyu nañu aji Kumba Ndiaye bu baax a baax. waaw ah, di ko ñaaral jàmm. di ko ñaaral jàmm sama rakk sëñ Mbacke mi nga xam ni nii cantaakun la taalibu Cheikh Béthio. Mm-hmm. mu ngi Serigne Saliou nuyu ndongo Baye Fall sama rakk. ok merci jërëjëf euh, Balla mu sëñ fàllu bétti mu nekkoon Balla mu sëñ fàllu macha mm. allah waxtaan euh, waxtaanee am na solo.